moo gaa ñun ñëpp di nii ñu màggal sayyiduna oh, Muhammad Abdoulaye maama Abdoulaye Muhammadin rasulullahi mooy soppe yàlla. habibika alkarim. mooy soppe yàlla mu tedd ma. nabi mooy ayni naimi. ne la Sidina Mohamed mooy jëmmi xéewal. nabi mooy markazil fu. ne la Sidina Mohamed xool mooy magasin wayu dégg ñi ñi am dégg xam dégg mën a dégg dégg wax ki leen ëpp dégg dàq leen dégg mooy rasulullah. sunu waajooju mooy afdal haasimin. askan wi mu bokk nag te mooy jir haashim moo ca gën. rahmati yonent Seydina Muhammad mooy jëmmi yërmande mooy xayrul bariyati moo gën ci mindee fi te kat mooy shafiul ummati yonent Seydina Muhammad ëllëg yowmal xiyaam mooy ramu xeetu yi maam Abdu ne akrim bàyyi maam ne kawtéefu tedd nga min sayyidil xamuli min sayyidin ci sang bi xamuli kay yenn waa kon lu mu yennu asal baraya yonent Seydina Muhammad mooy yenn loru mindee fi mooy waalidil batuul bàyyi sama sëriñ sëriñ moo doonee ne koo koy bàyyi batuul xam nga batuul mooy kan hmm. mooy Fatima fatimatul batul daan nañ ko zahra al batul mooy al munqatiatu ani dunia al muxbilatu ala llahi bil kulliya ki dëgmal àdduna dog àlla ki dëgmal àllaaxira dog àdduna mooy fatimatu bintu rasul kaw tiifub tedd nga ci sang bi nga xam ne mooy joxe waa kon bahril huda axiratil anbiya sidina Muhammad mooy giijug waaye mooy tànneefu yonentu yi akrim bi góor gi ne kaw tiifub tedd nga min saafi al musaffa min saafi an ci aji ramm ji al musaffa kadi ku ñu rammuloo inda sidaadil hawli yawma al fazai nee na fas ta biru eh, taru tiitaange ba nga xam ne ñëppay tiit moom dongay dekki ànd ak sa goom na ni ni akrim bi akrim bi min maajidi mooy sayyidi kulli raakiin wa saajidi Muhammad mooy sang ku mës a sujjoot ak ku mës a rukuwa kii sa sang mooy rasulullah akrim bi min sayyidi lawlaaw kaw teefuk tedd nga ci sang bi nga xam ne bu nekkul woon ak moom subhaanahu maa urifa al ilaah bu nekkul woon ak moom du ñu xam yàlla ñu laka mu'jizaatun ajazat kullal wara mais temps bi temps bi jeex na laka mujizat ajazat kullal wara mais benn minute rek wax doo leen ko laka mujizat ajazat kullal wara yàlla ngay waxtaan ak rasulullahi laka mujizat ajazat kullal wara yàlla nee na ko ñi la bëgg ak ñi la bëggul duñu yàq laka mujizat ajazat kullal wara yàlla ngay waxtaan ak sayyidina Muhammad laka mujizat الورى يمن يلا ني رسول الله لك معجزات أعجزت كل الورى ما يوني بقلات يا رسول الله لك معجزات أعجزت كل الورى يمن وقتك سيدنا محمد لك معجزات أعجزت كل الورى يلا ني كن يلا بغ يلا بغول دنيا يم لك معجزات أعجزت كل الورى من كان مؤمنا غينك من كان فاسقا معجزات أعجزت كل الورى لك معجزات أعجزت كل الورى يلا ngay waxtaan ak Rasulullahi لك معجزات أعجزت كل الورى yàlla ko naa la siwal yow Rasulillah لك معجزات أعجزت كل الورى ورفعنا لك ذكرك لك معجزات أعجزت كل الورى yàlla ko naa la jox ba nga ni doy naa لك معجزات أعجزت اختار كل الورى ينن ولسوف يعطيك ربك فترضى لك معجزات أعجزت كل الورى صلى الله عليه لك معجزات أعجزت كل الورى نبي ختل الجرم لا آه. على الجنون لا سنواجه ختل الجرم لا على الجنون لا على الجنون لا dirim la baayoo la usa sa waaja day teral mag day teral ndaw danga naan day teral dëkkandoo Mamadou Lamine man bëgg naa